sëriñ ci ak murid yëpp ñu ñu yóbbu bu gën a tedd di leen xamal nag ne la di leen sëriñ Tuuba di nga xam ne ñëpp xam ñu aw turam ci ñëpp moo di sëriñ bu mag bi waaw moo mag bi sëriñ si nag yëpp bari bari nañu lool sëriñ si des bari nañu lool sëriñ boobu nag te waxam gi nga xam ne moo ne fi Tuuba ñu ko tàmbalee ci ragal yàlla ak jaamu ak fas yéene ak jaamu yàlla rek yàlla te nag moom moom mi mu jumaa ji moo gën a moo gën a rëy yi nga xam ne ñu ci ñu ngi ci suñu ci suñu ci wàll gi ñu dëkk maanaam Sénégal gi moo ci yëpp moo ci gën a rafet moo ci gën a am barke sëñ bi ci boppam sax li tax mu wax loolu wax na ci wax na ci la ñam ne guddi gi nga xam ne suñu borom da koo jox jumaa ji waxtu woowa mu ngi ci géej gi booba tukki boobu mu tukki woon malayka yi dikk dikkal nañ ko dikkal nañ ko foofee ne ko dana bëgg léegi nga nga di nga nga nga mu liggéey la liggéey boobu dafa defal la ko ci barab bu soob ci ci ci réew yëpp soo foo ko bëggee rek ba bëggee sax defal la ko tabax koo xam ne dañ ko def wurus ma def ko xaalis lépp yi ma ma yëg ko man leen daal definut dana sëkk rek ndax dama am nañ njaboot ak ak waa kër ak taalibe yoo xam ne maa bëgg ñëpp yëriñu ci te waxtu woowu itam jinne yi dikk ñëw sakku sakku loolu loolu yi malaaka doon sakku mu wax leen mu wax leen li ma waxoon rek leen daal naa bëgg ñëpp yële ñu ci waa nga njëriñ nag fukki at ak ak yet mbaa la ko ëpp tuuti mbaa la ko yees tuuti woona ci ci ñu bokk ci ñëpp ñu ko gën a jege ku ñu wax Cerno ak sëñ Mbàkke Buso ak la fitali bi mu digal leen taw liggéey boobu yi wax na leen wax na ci wax na leen ci nag ay déet yu baax a baax yoon bi ñu ci àlla fu sa yu baax a baax daal bàggani sax ci bàggani sax ci ci nekk ku ci ku ci farlu sa mbir dana feeñ ci dana feeñ faw ku ci gën a yëf yaay gën a jëm kanam yaay ba ba te ab diir loolu yëpp liggéey nañ ci ku ci nekk la nga mën def nga ko ci ñii liggéey nañ ci ak si ci seen ñaq ñi jox nañ ci dañu am ci alal ne ko sama borom fay aw yiw liggéey bi nag mat na ci tabax gi tabax gi mu mu tax fu jumaa yi mat na nag ci atum junni ñetti téeméer ak juróom ñett ko yaar ci gàddaay gi kon ñi nga xam ne doom ji ñuy wax doom ji nga xam ne dafa jaayoon ak ndoom ko jaayoon ak ndoom bi mu ko jur ñu nekk taalibe te ay faram ay faram dàgg mooy alay Modou Fadal nag moom ak ñaan yàlla nag yàlla na ko fan gudd te motali mu ay ay ay yéenam yëpp yàlla def ko na ko bëgg ni ma ay iwaan yi